mais ku xam la dëgër xam nga tey euh, di nga toog benn moment boo xam ne ngay nekk ci yenn yitte yi. Hmm. mais déggante nañ. woo xam woo ko sama téléphone. waa si woo naa ko. woo ko téléphone. envoyé naa ko message vocal. Hmm. woo naa hmm. envoyé naa ko message vocal. yaa ngi dégg mais nag. tout le temps ñëpp mooy am temps ñii dañuy am temps ñii am temps. yaa ngi dégg mais lépp rafet na. déggoo ma ne la ba guy gi teewee la lépp ëmb. guy gi ba mu teewee la lépp ëmb. Alioune Seye 2 bu ñu nee Alioune Seye 2 xam nga ne moom ma la ñuy wax géejawaay. parce que moom moom fu xootee ko mu jël pusoom ñaw. kon donc. déggoo ma ne la ñaan ñi bu ñu teewee rek. ma ne ni géejawaay ñëpp teew nañ. yaa ngi dégg am ci mbégte gis leen sant leen gërëm leen waaw ñu ngi ñaan daal. li nga xamante tay mo fi tewlo ñep yalla na fi ñep joge ak xol bu sedd guy wa avant tout sante yalla bu baax di sante sama xarit yep di sant waa alaykum di sante euh, ñi nga xamante tay euh, sama sama nit lañ sama am di jamm lañ ini leen di di leen gërëm hmm, di nuyu sama dom day Alioune seydou ñu xamne sama lepp la koo xamante buñ ne la dëgg na lañ say de kon donc moom dañ koy sant baax ko guddal fanam yàlla yokk ko bés bi nga xam ci la jëm dafa ko ci ndam ci mu nekk nit ku baax nit ku gore mu nekk sama nit nekk sama lépp eh, di sant ki nga ne defena naa boo daan mhm. di nga Euh, guy gi maanaam nit bu xolam rafetee rek da koy wax. waaw xolam rafet na gore na tabe na. Euh, maa moom ñu séq jàmm. mu nekk nit ku baax. ma xewle. yëgati sama portable woo ko. mu teew. bàyyi yitteem yëpp. kon ko guuy gi yalla rek la ko meuna bayel bàyyeel mun ma ko bàyyee kenn ku dul yàlla suñ borom ci bëss bi mu jëm ni yalla dafa ko ci ndam lu reuy mu nekk sama way nekk sama lepp barki sëriñ baba Si bu ñuy wër gor nañ daw ñew japp guuy gi sama way la sama xarit la wa kontaan na ci mom trop vraiment di ñaanal yalla nako yalla baye ak soxnam baye ko ak ci barki sayyidina Muhammad. ma waxat encore ci combat bi mu jëm yalla nako ci yalla may ndam ndam bu sedd guuy lolou ma ko ñaanal di nuyu tamit ki nga xam moy Fils de balle dem na ni Fils de balle jarul sax may wax ay waxam di ci sori parce que euh, Fils de balle sama lepp la sama waay la sama xarit la sama rak la euh, yaayam di nit ku bax wajurum bu gor tam waxi nopi man nak sama koy sante fi fi lay fanane kon ñaanal ko rek la am. yal na ko yàlla defal jàmm. est-ce que mën nañoo xam Lac de Guiers ban affinité la am ak mbër yi mu xewle ñoom ñëpp ñëw teew bàyyi li ñëpp luñ doon def ñëw waa wuyu si ko ci bësam bi. waaw mais sant yàlla ñëpp laa seqal jàmm. defe naa ba ma seqaloon moom ñoom jàmm. doo fi gis guy yi. doo fi gis yeneen mbër yi. bu guy gi ñëwee. Alioune Seye 2 ñëw. Fils de Balla ñëw. ñëpp ñëw ne. mbër yëpp ñëw ne. ñoom buy ñëwee rek bëri yëpp ñëw nañ. xam nga lu wax di nuyu nag waa écurie Walo baax écurie Walo euh, su may sant damay jël nuyoo bi teg ko ci loxo Madji Madji def naa ba ma ko tegee ci loxo Madji Madji teg naa ko ci loxo ñëpp waaw euh, ma sant écurie Walo baax a baax di nuyu sama rakk sama xarit Madji Madji moom tamit euh, yëkkati sama portable woo ko téléphone ko mu teew sama bés kon donc maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu Mathia sama rakk ah di nuyu dund sama rakk yooyu noonu aw ma seen fay mais yàlla yàlla fay képp koo xam ne teew na fi yaa ngi dégg ah aw ah, vraiment mais yàlla rek laa di bàyyeel ñu nekk samay gaay yu baax sama nit yu baax ñoom ñoo teew fii sama yaay yi sama papa yi mais tamit di balu ak wa cité bi di balu ak kep ko xamna tew nga ci sama bëss bi ni parce que ken ku nek mëno nga dem dox benen yitté mais da nga bàyyi si lépp ñëw teew kon donc ñu ngi ak ñep di balu ak wa fij mi maa ngi leen ak di leen masalu coono baax a baax metti la dëgg di di sant bu baax baax samay xarit naka ñep ñu sonu ci bëss bi yëpp ñu ngi sant ñep di sant sama mbokk soosay di sant sama côté jabar Lebu yi ma ngi sant ñep nga sama soxna lebu la ma ngi sant lebu yep ñi ma gis ñi ma gisul yep ma ngi sant di leen gërëm bu baax baax di ñaan yalla yalla defal leen jamm presse nak vraiment kontaan na ci ñoom parce que tay ñu bayyi seen yitte yep ñew tew kon donc ñun amuñu fayu presse bi ak lu metti metti metti metti dinañ bayyi seen yitte yep ñew tew kon donc presse bi dañ leen di jaajeufal di leen sant baax baax di leen ñaan yalla yalla na leen yalla yokk képp ku téye micro tàllal ko Lac de Guiers 2 wala nga yor sa caméra tàllal di filmer Lac de Guiers numéro 2 yal la yàlla yokk ci barke Seydina am vraiment kontaan naa trop waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup. jërëjëf lu ñu defal lu dul dugg dem ci waxtaan ak moom après ñu dem ci guy Aliou Seye ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, Baye Fall ñu ngi lay delloo ziar di la bëggee. aussi ñu gis euh, dégg nga la dëggee seede ci yow ndax nga ko gisee. waaw sant yàlla rek wax dëgg yàlla moom sama xarit la sama lonko sama doomu ndey la lépp loo xam ne ci man la ko wax rek ci moom la nekk. di ñaanal bébé bi suñu borom may ko gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ni ay waajuram bëgg nañ ko ci moom rek suñu borom mottali ko yàlla na sut turandoom ak gis de de nañ jangat ah, ci yeen detaay ñun amuñu benn problème aduna leena nga gis ñi ñew sax na Balla tax ñewul ci ngénte wala guuy guuy tax ñewul ci ngénte la Lac de Guiers da doon tudd ngéntewul de champion la portal de vala jël na mesure barrière comme ni ko ni bu doon ngénte tey fii waa biir restation fi fekk lool mënul nek nañ ko xam ni ñuy jëlee mesure barrière ñun loolu la ñuy njëkkee kon comme ñun Podor Vallée duñ topp rek télé di wax dañ koy njëkkee lat ñu ñëw sax da koo jaaxal da gis mu daw dugg dugg làqu soo waxee mun la booy mesure barrière yi kon ngéntewul ñu jàpp ni xam ne tey champion yu teewul lat waxu ko ci kenn bi maanaam bu la ko waxee dala ko wax rek ne am naa doom damay tudd mais néewu la nga ñëw pour mu leer ci image ñiy gis parce que damay dégg yee rumeur li tax kii diw ñëwul diw ñëwul loolu la ngéntewul day tudd te dafa jël mesure barrière yi comme ñu koy jëlee tey bu fi nit ñi ñëpp ñëwoon brigade recherche moo koy tas te it ñu waxante dëgg mënu nekk porteur de voix di ñu ni moom na wax ci mbas mi tey muy dajale ay nit kon dañaa la dëgg mi est que nit la noonu la demee nag di ko ñaanal yàlla doom ji barkeel mu dundu ba fekk njariñam yàlla mënu ko yàlla ko yàlla la suma xarit la dama ko yekk lu mel ni xamee lu mel ni xamee laa ko yekk tey takk gi tey man waxtaan naa ak Alioune Seye li naa ko bu génnee ci combat bi dina takk force ci lii wala ca daal léegi dama ko jeet indil benn anecdote moom damaa jegi-jegi rek kere takk kër gi fees del kër gi keroog la ëpp lii keroog la keroog ëpp lii jom bekaay boobu dafa guy gi laata gerte fu takkee wala ko demal ci kër gi rek <laughs> mais loolu tey moo indi lii dama xëy rek mu fippu mais nag mu nit ku baax mu nit ko am dafa simple xam naa ko bu baax euh, du wax ci ginnaaw nit du wax ci ginnaaw ni te nit la koo xam ni man ñeme naa ko man suma ñemee ni rek ñeme naa la su ma la ñeme la du wax ci yow mais suma ma xaar la te amoon na engagement ci combat bi sama combat bi engagement bu bu doy waar xam na nas xam na ñuy liggéey maak sumay rek rakk yëpp am na xam kenn du wax ci tere nous sommes nous daanoo ñu daal benn leen na ñu ñaanal yàlla géewaay te incha allah bu neexee yàlla ren géewaay c'est le maire c'est le maire ci làmb ji guy gi ma woon mooy dajalewaat booy yi sama rak yi nekk sama ginnaaw ñu organiser suñuy mas di dajaloo foo ñu gis ñu bokk ànd di dóorandoo di bàyyandoo te incha allah loolu bientôt di ngeen ko gis soo yàlla tey Alioune Seye nii nii nii bëri naa ak moom mbapat cinq secondes la ma daan taxañ ma teg fële moo la daan te doo toog fenn mu ne daan naa guy gi te ba ma ko fekk boobu champion la mais nangu damaa nangul ne man champion la man it man nangul ko ko nit noonu lay mel moo tax anamu lim doon tegalay jafe ji yàlla fay na ko ci benn tàkkusaan lan moo gën a neex jël bi mu daan barki démb champion nga dóor ko mu ni këpp julli tàkkusaan yàlla am na loo ne boo ko boo mu muñee rek mu fekk si la ci soo fekkee da ngaa diit diitlu rek yàlla indil la leneen nañ jàngat ci yenn détails ñun amuñu benn problème àdduna léeg nga gis ñi ñuy ñëw sax ne Balla Gaye tax ñëwul ci ngénte li wala guy Gui tax ñëwul ci ngénte li Lac de Guiers da doon tudd ngéntewul de champion la porteur de voix la jël na mesure barrière comme ni ko nit ñi jëlee bu doon ngénte tey fii waa brigade recherche ñoo ko fi fekk loolu mu nekk nañ ko xam ni jëlee mesure barrière ñun loolu la ñuy njëkkee kon comme ñun porte-voix lañ duñ topp rek télé bi di wax dañ koy njëkkee lat ñu ñëw sax la koo jaaxal da gis mu daw dugg dugg làqut soo waxee mun la booy mesure barrière yi kon ngéntewul ñu jàpp ni xam ne tey champion yu teewul lat waxu ko ci kenn bi maanaam bu la ko waxee dala ko wax rek na la am naa doom damay tudd mais néew la nga ñëw pour mu leer ci image ñiy gis parce que damay dégg yee rumeur li tax kii diw ñëwul diw ñëwul loolu la ngéntewul day tudd te dafa jël mesure barrières yi comme ni ñu koy jëlee tey bu fi nit ñi ñëpp ñëwoon brigade recherche moo koy tas tey it ñu waxante dëgg mënu nekk porteur de voix di ñu ni moom na wax ci mbas mi tey muy dajal ay nit kon dañaa la dëgg mais est ce que nit la noonu la demee nag di ko ñaanal yàlla doom ji barkeel mu dund ba fekk yàlla ko yàlla na ko yàlla la suma xarit la dama ko yekk lu mel ni xamee lu mel ni xamee laa ko yekk tey takk tey man waxtaan naa ak Alioune Seye nee naa ko bu génnee ci combat bi dina takk force ci lii wala ca daal léegi dama ko jéem indil benn anecdote moom damaa jékki-jékki rek kere takk kër gi fees del kër gi keroog la ëpp lii. keroog la ëpp keroog la ëpp lii ñoom békaay boobu dafa guy gi laa de guerre fu takkee wala ko demal ci kër gi rek <laughs> mais loolu tey moo indi lii dama xeexee rek mu fippu mais nag mu nit ku baax. mu nit ko am dafa simple xam na ko bu baax. Euh, du wax ci ginnaaw nit. wax ci ginnaaw ni te nit la koo xam ni man ñeme naa ko man su ma ñemee ni rek ñeme naa la suma ma la ñeme la du baax ci yow mais suma ma xarit la te amoon na engagement ci combat bi sama combat bi bu bu doy waar xam na nas xam na ñuy liggéey maak su may rakk yëpp am na xam kenn du wax ci tere nous sommes nous daanu ñu daal benn leen na ñu ñaanal yàlla géewaay te incha allah bu neexee yàlla ren géewaay c'est le meilleur c'est le meilleur ci làmb ji guy gi ma woon mooy dajalewaat booy yi sama rak yi nekk sama ginnaaw ñu organiser suñuy mas di dajaloo foo ñu gis ñu bokk ànd di dóorandoo di bàyyandoo te incha allah loolu bientôt di ngeen ko gis soo